الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نجي سنت يالله نكوي مغال نكوي كاñ ndax moom rek moo yeyoo màggal moom allah moom rek moo yeyoo kañ ndax moom mooy buur mooy boroom moom moo bind te ngeen bind ko wallahi al azim alquran bi du waxu nit alquran bi wallahi du waxu nit boo xoolee bayaan ñuy def nekkul ay bayaan yoo xam ne ay bayaan préparé la dañuy fexe góorgóorlu suñu kéemtalaay kàttan bu imaam yi di jàng ñuy xool ci li ñuy jàng di ci stress suñu kéemtalaay kàttan waaye tout le temps boo xoolee da ngay xam ne wax ji bu doon nit la ak fi ñu jaar ak borom bi subhanahu wa taala ak fi mu jaar ak ñun waaye da ngay jàng ci waxam sagesse moom borom bi subhanahu wa taala def nañu ay jàngat nag ci jàngin bi boo xoolee suñu ilimaan jàngal nañu surutum këx fi ci biir surutum këx fi daanaka saar la boo xam ne ay jàngat rek ñoo ci nekk rawatina jeunes yi waaw jeune bu bugg tegu ci yoon bu baax nga xam ne déviation dafa taxaw seytaane taxaw nga bugg tegu ci yoon bu baax jàngal surutum këx fi nga xool say moroomu ndaw ci yenn situation lañ nekkoon ak fu ñu mujjeeg situation bi ba ni leen yàlla yëkkatee ci kaw muy asxaabul kax fi nekkoon ay ay xale yu góor tolloon seen diggu doole nga xamante ne foo beeg lépp leen soxla ñu nekk ci dëkk boo xam ne caaxaan bi dafa bëri ñu ne déet ñun moom lii moom mënuñ cee ànd waaye nag amuñu kàddu ndax ay néew doole lañu ñi gérer nguur gi ñoom ñoo installé li nga xam ne mooy caaxaan googu di distraire jeunes yi ci xeetu ñaawteef lu mel ni naan sàngara lu mel ni drogué wu lu mel ni carte dañuy indi histoire bi xoolee ko si suñu jamono moo tax ñuy indi exemple yooyu ndax loolu responsabilité état la. sa ndaw réew amoo dara loo xam ne moom nga leen taxawoo muy ubbi réew mi boyal ko ci carte boyal réew mi ci naan sàngara mu yomb lool boyal réew mi ci drogue mu ñaaw lool yaakaar naa 2013 mu ngi ñu fekkoon Burkina Faso mooy dëkk boobu ñu naan pays des hommes intègres dara taxul ñu tuddee ko loolu loolu ay caaxaan. pour état bi nelawloo jeunesse bi dafa jël lii yëpp boyal ko lépp ku lu caaxaan yombal ko jël jigéen ñi dindi seen valeur sànni fële ngir lan na na na xale yi nelaw ñoom ñu mën a def li ñuy def waaye ndaw yi de bi ñu gisee lii seetlu ko ñoom dañu manqué seen biir ne lii moom mënuñu ko fi dindi waaye dañuy jël suñu responsabilité ban responsabilité lañ jël mooy ne dañuy génn dëkk bi suufu yàlla bi yaatu na. bu ñu ma xañee fii jaamu yàlla bu ma fa toog gàddaay du jeex ni yonent bi saa salaam gàddaayee woon jóge Màkka dem Médine ba tey dafay am buntu gàddaay du tëj nit ki ci bakkenam sax dafay gàddaay ci bakkenam maanaam lii dafa xaraam naa ko gàddaay mooy yàlla dafa xaraam dama koy gàddaay loolu mooy baatu hijir du jeex ba ilaa yawmi diin foo taxaw rek mu wóorale ne fii mooy yàllaa fi am lu neexul yàllaa fi am dugal nga gàddaay place boobu dem loolu lañ la sant ba keroog ñuy dellu si waat ci jàmm ngeen dellu si waaye man li ma gën a ñor ci saar bi mooy àndandoo ku mën a ubbi saar bi mun na ko ubbi mu xool gis njëriñu àndandoo bu baax aaya bi jëm 21 22 23 ñun suñu diine de yaakaar naa bëggul bëggul yar xaj si sa si sa bànneexu bakket xaj suñu diine sa bànneexu xaj sa ba- sa bànneexu bakket daf la neex nii rek nga ut benn xaj rek ne dama koy yar ngir damaa bëgg xaj loolu daganul si suñu diine kenn dong la ñu may mu yar xaj mooy ku yor bergerie nga xam ne till yéeg wala leneen mën na jóge sàcckat yéeg mën na jóge fu nekk yàqal la ko nga wut ko mu mu utiliser la comme gardien te boo amee beneen solution moo gën nga yar li nga xam ne mooy xaj boobu waaye ak islam lu mu koy sib sib sib di ko bañ xool leen aay yi de pourtant yàlla xaj lay wax sa yaquula sa sa sa yaquluuna salaasatum wa raabihum kalbuhum mu di ko répété rek fu mu waxee benn nombre rek mu ne xaj bee leen mottali ñett la ñu woon parce que dañ dañ doon wax ne groupe xale yooyu ñett la ñu woon ñii ne déedéet du woon ñett ñeent la ñii ne déedéet du ñeent juróom la waaye lim yooyu fu ñu ko tegee rek xaj bi lañ koy mottalee déedéet du ñett xaj bee leen ñeenteel déedéet ñeent la xaj bee leen juróomeel déedéet juróom lañu xaj bee leen juróom benneel man de Ousmane si moom gisaguñ ko ci alxuraan ba léegi te duma mala nit laa waaye xaj bi lan moo tax mu am grade bii ñu koy tudd boobu ba léegi ay àndandoo yu baax loolu lañ ciy jàng nit suy ut àndandoo dafay ut àndandoo bu baax su ko defee mu baaxaaleel la man damaa bëgg baax bëgg tegu si yoonu baax naa xool ñi baax ma ànd ak ñoom su ko defee ñu baaxaaleel ma xaj bi lii moo ko may sens et pourtant ñoom yàlla nelaw noo leen ay ati at nombre bi dañ koy wax mais ne yàlla rek moo xam nombre bi ñaata la ñu woon ñoom ati ñu fa nelaw dañ koy wax waaye yàlla rek moo xam ati ñu fa nelawoon waaye bëri na ndax li màndarga liñ fa nelaw bëri na mooy bi ñu yeewoo gis nañu xaj bi ñu àndaloon moom moom dee na ba maasaloo moom nëpp na fa ba dee ba maasaloo waaye dëkk bi nga xam ne moom la ñu jóge woon xaalis bi ñu yoroon sax waa dëkk bi fàtte nañu xaalis boobu ndax existé woon na ci dëkk bi ñoom melokaan bi ñu meloon si seen façon solin sax bi ñu yeewoo gis nañ ne dëkk bi changé na si beneen solin ndax kenn ci ñoom moo ne xaaral ma génn dem làqatu ut lu ñu lekk ndax ñoom bi ñu leen yëgee rek dañ leen lañ leen dàq ji rey leen yàlla nelaw la leen ci biir xunt bi waaye kooku bi mu demee ñëw tël bi mu tëllee sax nit ñi dañ dafa yéem nit ñi ci melokaan bi mu mel dafa yéem nit ñi ci melokaan bi mu mel parce que état boobu ñu amoon fàtte nañ ko lu mel ni exemple bi may joxe boo xoolee suñu Sénégal fii am na jamono boo arrière tuuti rek ay quatre-vingt rek tubéy yi nit ñi doon sol bas large la woon ci ay góor léegi xale yi lu ñu xewal peewu maanaam léegi boo solee bas large dugg si biir nit ñi dañ lay yaakaar kii kii moom fu mu jóge ak li mu sol nii dañuy jox exemple rek pour mu teer a teer ñoom bi ñu nee moom waa ji bi mu nee tëll rek waa dëkk bi dañoo jaaxle ñëpp di ko topp kay waa kii moom nu mu mel nii parce que xamatuñu genre nit yu mel nii ndeke de mbooloo boobu génnoon si dëkk bi ne dañuy dem jaamu ji yàlla te ñoom moom bi muy tëll ci dëkk bi sax moom dafa xaw a jaaxle ndax dëkk bi at yi passé yëpp yàlla dem na ba changé dëkk bi buur yi fa nekkoon di def ci fu caaxaan yàlla jëlee na leen fa ba indi fa buur yu baax ba état bi léegi sax état islamique la exemple moom bi mu ñëwee si dëkk bi loolu la gis dafa gis ne dëkk bi léegi am na sécurité ñu ngi si état islamique fii àtte yàlla moo fiy dox xaalis bi mu yoroon xaalis boobu xeewi na histoire bi buñ ko fi toppee duñ fi jóge waaye li am solo te ñu jàngat si war si jàngat mooy na nit ñi di wut àndandoo yu baax bu ñu jëloon histoire Moussa Xudar beneen histoire la histoire Zul Qarnayni beneen histoire la waaye ñun dafay dañuy jël lu ñu yitteel mooy ndaw ñi nañu ñaax seen bopp ci di an ay àndandoo yu baax lu bon ñu sori ko ñu demaat ci beneen jàngat bi xam ne boobu moom dañ koy dañ koy briefing rek jigéen ñi ngeen bàyyi ko xel ndax yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dafa teral jigéen jël saaru rëmm tuddee ko jigéen surtout nisaa jël saaru rëmm tànn benn jigéen tuddee ko saar muy Mariam bi ñu jàng léegi mu ne la waskur war- waskur fii kitaabi Mariam allahu akbar fàttalikul ci téere bi histoire kan Mariama mooy kan mooy yaayu Jésus bi ñu xam nekkoon jigéen bu sell nekkoon jigéen boo xam ne xamoon na taxawaayam en tant que jigéen nekkoon jigéen bu chaste bu am pudeur xam boppam ndax boo xoolee dialogue bi mu am diggante moom ak malaaka bi da ngay dégg ne kii xam na boppam malaaka bi daf koo dikkal ne ko da nga war a am doom waaye xoolal li ko Mariama tontu man naka laa mën a waree am doom te fekk xaw ma góor inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey suñu jamono tey suñu jamono maanaam tubaab bi dem na ba nax ñu nañu léegi sax mun nga xam góor te dara du la ci fekk utal la ay moyens yoo xam ne yow di nga xam góor di jonjoog moom ba dara du la ci fekk waaye xool leen Mariama moom lu mu tontu malaaka bi man naka laa mën a amee doom te xaw ma góor jigéen la de mu am papa am yaay juddu comme comme ni jigéen ñépp juddoo waaye baax gi mu baax moo tax yàlla jaarale ci moom kéemtaan bu mu mus a jaarale ci benn jigéen am doom te amul papa li ñu ko ciy jàng jigéen ñi jigéen dafa war a chaste dafa war a am pudeur am caractère wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatul uulaa am ngeen droit génn du ngeen ay prisonnier comme ni comme ni leen ko tubaab bi bëgg bëgg gëmloowee du ngeen ay prisonnier am ngeen droit génn islam tëjowul benn jigéen def ko prisonnière daf leen a génnal waaye booy génn na nga génn ci ci fullaak fayda na nga génn en tant que jigéenu jullit na nga nëbb say cër bul génn comme jaaxil nañ doon génnee jaaxil nan lañ doon génnee moo dañuy génn di sol ay ay ay décolleté di sol ay ay jumbax aawut ju baal ma faw mu leer dañuy génn seen cër yépp mu ngi ci biti loolu génnu jaaxil la woon léeg-léeg sax bu leen neexee ñu jël benn seen takk ko seen tànk bu ñuy dox muy yënga def bruit pour yëngal góor ñi jigéen warul génn di xeeñ parfum boo xam ne day attiré parfum bi ngay xeeñ dafa war a des ci yow nga xam ne pour préserver sa bopp ci yenn odeur yu yaram yi di dégager nga xam ne xet du dégagé am na parfum yu mel noonu jigéen moom la war a jël boo buggee lu neex loo xam ne luy gil la téye ko sa biir kër ngir sa borom kër jigéen bu génnee nekk jigéen boo xam ne dafa exhiber boppam wane boppam ci biti moom jigéenu ñépp la maanaam abwaaba kulli shay lay nekk maanaam yàlla day ubbi buntu yépp seytaane yeeg lépp koy dugg tey xool leen jigéen liñ tàmm néew na nga gis jigéen mu ne la aw ma problème bopp buy metti lu ëpp ci jigéen bopp bi metti la ñuy jàmbat lu leen ko yóbbee bopp neen am na heure boo xam ne surtout jamono heure timis yooyu bu ci jëm timis di dugg foofu am na fa seytaane boo xam ne bu la duggee ba ba ngay dee dootoo tàqalikoo bopp bi metti jëlal lu la neex lan moo la ko yóbbee mooy tàmm di génn bopp neen yonent bi dafa waxoon yàlla dafa ko wax ne yow yonent bi waxal qul li azwaajika say soxna wa banaatika say doom bu yemoon foofu ku mu neex ne kon man bokkuma ci waaye yàlla toftalee ko ñetteel bi wa nisaa'il mu'miniin ndogal bi doog a ñëw ndigal bi yudniina alayhinna min jalaabi bi allahu akbar kan moo joxe ndigal bi ki la sàkk yow jigéen ne koo soxna yonent bi ne koo doomu yonent bi waaye jigéen ñi gëm yàlla nga kon muural sa bopp yàlla moo joxe ndigal boobu te nekkul muuraayu fashion jël sa dagg du kol sànni sol sa jin seere ñu ne non non ibaadu ibaadu fashion la ibaadu moderne déedéet amul yàlla moo la jàngal nan ngay muuroo kol bi na yaatu na jàpp sa bopp muur sa baat muur say dënn bul sol loo xam ne lu lu ne ràpp sa yaram la bul sol lu yaraax bul sol lu gàtt ndax jigéen bu fekkente ne mu ngi sol lu yaraax di sol lu gàtt di sol loo xamante ne lu seere la xetu àjjana du ko xeeñ àjjana nga xam ne ak xetam gu neex ki boo tolloo ay distance daf la war di xeeñ xanaa boo ci duggul sax mën a bànneexu ci xet bi léeg-léeg nga gis séeréer bi wala ki sant njaay amul li mu diw ci mburu bi waaye bu ñëwee place fi ñuy toggee soos bu xeeñ day lekk mburu bi nii sans sans diw dara mais mu ngi bànneexu ci xet bi soos bi sax yow mënoo dugg ci àjjana waaye nga xam sax bànneexu ci xet bi lu lay xañ xetu àjjana mooy solin boo xam ne baaxul kon yéen ñii sàmm seen bopp ci muraay ñu ngi leen di encourager li ngeen nekk mooy yoon fi ngeen teg seen tànk foofoo baax bu leen ko teggi yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam ñaari jàngat yi la ñu amoon waaye wallaahi bu ñu ko toppoon ñaari saar yu ñu jàng doy na sëkk pour nit ki dund lu leer loo xam ne nag mënuñu ko wax dañ koy delloo njukkal suñu borom bi ñu bind ndax moom moo baax ci ñun moom moo xam li gën ci ñun xool leen tuumaal bi ñu tuumaal yàlla tey ay nit la ñuy tuumaal garaawul waaye yàlla mu bind moom la ñu tuumaal tey mais xoola yàlla tey nu muy waxee xoola ni saar bi jeexee suñu imaam bi mu koy jàng yàlla nu mu doon waxee dafa mel ne sax da doon da doon daf ñu doon daf ñu doon saraxu ñun tey fii kuñ fi tuumaal boo moytul fëgg bunt bi ngay def dajji buntu jàkka ji nangam lan la daf maa tuumaal mais lu day ñu yàlla ñu tuumaal ko am doom nga xam ne méritoowul am doom ñuy jàng xul wallaahu aar chaque jour ñoom ñi ko wax xam nañ ne sa boppam du dëgg waaye ak loolu yëpp bu ko neexoon yàlla bu- wax boobu bi mu jibee sax asamaan ak suuf dañoo bëggoon te loolu buñ luñ luñ naroon buñ ko defoon àdduna bi jeex na waaye ñoom luñ def duñu lu ndigalu yàlla la ñuy xaar wax boobu dafa rëy waaye ak loolu yëpp yàlla mu ngi ko muñ toog parce que bés a ngi ci biir bés ñun ñëpp dañ dellu ci moom foofu lu ñu fay jàng en tant que mooy borom lu ko neex def am na doole mais mu ngi téye lépp a muñ kon nañ sax ci muñ ñun tamit lépp lu ñu teg suñu der yow jigéen bi muuru yow jigéen bi woote da nga bëgg baax lu ne dinañ ko teg sa der waaye xoola borom bi moom di jiiñoon nañ ko loo xam ne lu garaaw la te mu ngi toog jàpp li nga xam ne mooy ñaambaram nekk nga xam ne mooy muñ te yàlla mu ngi ànd ak ñi muñ kon nañu muñ lor yi ñuy teg si ñun ku bëgg teg si yoon bu baax faw dinañ la def lu nekk lu ne dañ ko dégg waaye muñal nga tegu si yoon bi yàlla nañu yàlla may dégg ak topp rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar loo jub si wax si ñu xam ne wax yàlla moo jub moo leer moo rafet lu ci dëng si man mii la yàlla nañu yàlla jégal dëng-dëng yi mun nañ jublu si deuxième partie bi incha allah kan moo nekkaat yi